ñëwal kër fay local la ñun ñoo moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko. Sénégal kër mbokk yi ñoo ngi leen ñoo ngi fi Fatick fekk fi Malick Thiandoum ah, di suñu papa di suñu royuwaay di suñu lépp fekk ko fi ci mbapat bi nga xamante ni chaque année am. ñu fas yéene waxtaan ak moom ci mbapat bi mbapat en général père maa lay nuyu bu baax a baax di la ziare bàyyi la nga nuyoog nii lay seetaan su ko defee ñu yaatal tuuti rek comme mënul ñàkk. waaw maa ngi lay nuyu Lamine di la euh, encourager di la féliciter ci liggéey bu rëy bi ngay def ci làmb yow ak xale yi nga àndal ay ndaw ngeen waaye bi ngeen ñëwee ci làmb ku yokkul da wàññi te yéen wax dëgg yàlla yokku ngeen. fi ngeen teg seen tànk foofu la gardez votre humilité continuez di gëstu continuez di liggéey yëf yi yéen ko moom ci seen loxo lay mujjee sawar gi ngeen sawar ba fu làbb dëgg ngeen dem fa tey ñi ngi nii Fatick ngeen bàyyi seen lépp ñëw fi loolu day wane ni am ngeen amuuru li ngeen di bëgg ah, li ngeen di eh, liggéey am ngeen ci amour am ngeen ci pas-pas am ngeen ci passion et c'est ça le plus important tey nag ñu nekk Fatick ah Mbapat ku ne xam na ne mooy école lu bëre mbër mu nga xam ne bëgg nga bu bëre lajee nga lijjanti ko il faut nga Mbapat Mbapat yi ci la Yékini luqee ko ba doon roi des arènes ci la Manga Do luqee ko ba doon roi des arènes ci la Modou Lo luqee ba doon roi des arènes ci la Balla Gaye luqee ba doon roi des arènes. ci la Bombardier lu xëy ko ba doon roi des arènes mbër balaa ngay toj làmb il faut nga jaar ci lu mel nii kon tey bu ñu ñëwee arène bii di ngor di ngor sit Ndour ci Njaay Njaay Fatick fekk fi nga xam ne mooy Cheikh Kanté day am solo ay mbokkam ñoo ko tuddee bés fii la fekk baax fii la ko baax fekk fii la war a fasu fii la ko maamam daan woyale boo gisee xale yi li sol ñi ngi ci bind Tanaw Tanaw Cheikh Kanté Ngara Tanaw Tanaw Cheikh Kanté Boukoum loolu maamam moo ko daan woyal ndax dafa am jamono ju nga xam ne am na picc bu ñu naawee loolu séeréer yi buñ ko gisee xam nañ nawet bi dina baax c'est des oiseaux yu xam dañuy annoncer dal dañuy annoncer jàmm dañuy annoncer nawet bu baax loolu la ko maamam daan woyal naan ko tànnaaw tànnaaw mooy picc yooyee Cheikh Kanté Gara Cheikh Kanté ñëw na tànnaaw tànnaaw Cheikh Kanté bu maamam bu jigéen la ni ko sama chéri Cheikh Kanté bëgg naa la donc loolu tey moom la mandargalaat fii ci biiru bokkam mais boo xoolee li xam ne ambiance li fecc dëgg way li mooy suñu aada li mooy suñu cosaan dama gis soo nekkee ci bëri simple souvent da ngay rakkaaju da ngay fecc maanaam da yëngatu daal lan moo tax ambiance bi la bëri ku rëy bi nga ciy gis la wala lan la bu nekkee bëri door na da ngay def tekk rek lan moo lan moo damay séeréer ci ndey di séeréer ci baay waaw waaw ndax euh, sama papa ci bëre bi kon sidditu mbër nekk ci sama yaram waaye deretu séeréer bu nekk sama yaram moo tax bu ñu wooyee foog ma am nu ma def donte ngaay laa juddoo nag. au cœur du Kayor foofu sama baay liggéey moo ko fa yóbbu woon waaye man séeréer ci ndey séeréer ci baay séeréer ci maam ba ci maamaat moo tax bu ñu woyee séeréer rek foog si du tu deretu séeréer di yëngatu du ma mën a téye sama bopp. lan moo tax ma Omar Thianam kon du la duñ ko di dégg mu làkk séeréer dafa teekul wala dafa yaroo wul ci séeréer. waaw man la ngaay laa yaroo o kër di Kayor ñu may lak wolof ah. mais man séeréer bi ma nàmp mooy séeréeru saafeen Euh, fi ñuy wax laandu nga dem dàgg dem xolpa dem cikki euh, euh, dem fi nga xam ne moo di kireen dem fi nga xam ne moom moom mooy contrée séeréer yooyu jas ak li ko wër foofu mooy sama suufu maam foofu la sama baay cosaanoo liggéey yóbbu ko ngaay mu dem foofu moo tax xëy na séréer bi may for sax mooy séréeru siin bi fële boo ma nee futub na ma ne la minga fii boo ma nee Malick Euh, Nafio man la may xeemeen waaye nag mënuma cee sori mais deret ji moom dereti séeréer la. nan nga gisee saison bi ni nga xamante ne moom la ubbee ba fi mu toll nii ubbi woon octobre novembre décembre ba janvier ñu am ay combat yu mag ban jàngat nga ci Malick Thiandoum def ak lan moo ko mayee ren. làmb moo dekkiwaat demoon nañu jamono ju nga xam ne amoon nañu jaaxle ci làmb mais tey. dafa am promoteur yi nga xam ne dañu ñëw euh, nekk ci événementiel muy Albourakh Events ak Baye muy Gaston Production muy euh, euh, Jàmbaar Wrestling ak ñeneen ak ñoom Assane Ndiaye ak ñeneen ñëpp ñi nga xam ne tey ñi ngi tëgg ay làmb yu am solo te dafa mel ni dañoo tegale ay ay dimanche dimanche yu nga xam ne eh, làmb yu mag rek moo daan am ñu bëre ci li nga xam ne moo di Euh, la couronne royale kii di Modou Lo teg ko euh, euh, teg ko ñaari yoon ci diggante xale yu nga xamante ni ñëpp dañu woon fu leen Modou Lo di jaar mu daan am Baldé daan Boy Niang numéro 2 conserver le titre de roi des arènes mais bul fàtte ni combat yi di ñëw tamit combat yu neex ñi ngi koy dëgmal ndaxte tey mën nañu wax ne mbër yu mag yëpp daanaka am nañu combat tafatin am na combat xam nga ni digganteem ak Balla Gaye 2 Balla Gaye dem na INSEPS préparé ji Tafatine dem na Maroc préparé ji bu wan la ne di nga ci takk ripp ji ay doon keer ji dina dellusiwaat wala lu ko raw dellusiwaat Bombardier taxawal nañ ko ak franc loolu aussi grand contre petit dafa dellusiwaat ah, nga xool ki nga xam ne moo di Sa Thiès ñu boole ko ak ak euh, Eumeu Sène loolu tamit nekkaat grand contre petit ñi ngi wax Zarko ak ki nga xam Euh, moom moo di bébé Diène grand contre petit del soit lamb moo ubbeeku lamb moo dekki sponsors yi commencé ñëwaat donc loolu commencé na tey di tax ba lamb egg fa mu eggoon level ba mu eggoon mais chapeau à Gaston production mi nga xam ne indiwaat na Claf Claf moo révélé tous les grands champions yi ma lim léegi kon bu ñu jëlee Claf bu mel nii taxawalaat ko dafay permettre ñu renouveler l'élite de la lu sénégalaise am yeneen champion yu nga xam ni tekki nañu wala boog egg nañu au sommet de la hiérarchie loolu day gën a neexal làmb day tax làmb gën a ubbeeku. Modou Lo def Modou Lo def na ñaari combat ci deux mois wala moins de deux mois jóge fa dem màkk ñëw am ñu jàpp ni Modou Lo day bàyyi bëre su xëyee bàyyi bëre ndax loolee bett doon. am na ay signes yu nga xam ne ça ne trompe pas Modou de plus en plus mi ngi xaw dellu ginnaaw ci làmb. néew ma day bàyyi nag mais bàyyeem soreetul mais li am solo mooy tey Modou ku ko xam làmba tax teraanga ju mu am làmba ko ko jox toll na ci diggu dooleem kon war na mën a ñamaat ba ci kanam ay centaine de million ci benn tàkkusaan mën a jox donte am na ay investissement yu mu def xëy na ci wàllu religion ci wàllu diineem am na niveau bu mu toll bu nga xam ne moom moo tax muy xalaat reculer muy xalaat bàyyi boo xoolee ni mu ñëwee ci làmb ak ni mu daan ñëwee ci làmb nga xam ni wuute na Modou mu xajam ma Modou mu mystique ma dafa bàyyi place ak Modou bu nga xam ne il est de plus en plus pur il est de plus en plus sec mi ngi wane ni athlète la mi ngi wane ni déeba déeba xar fa xuufa yu ñuul yooyu mi ngi koy commencé bàyyi loolu nag boo ko commencé bàyyi rek mel na ni yaa xaw a wan gannaaw làmb mais bu ko defee dañ ko koy nangul mais li wér te wóor mooy Modou li ko dese ci làmb bareetul. li ko dese ci làmb bareetul. non bareetul. pour jàpp nga ne yàggatul daal Modou mu bàyyi xëy na benn wala ñaari combat maximum amaana sax mën na ca bañ a egg. Ah. mais à coup sûr mooy Modou bàyyi la gën a jege ko continuer làmb. lan la war a jàng ci comportement bi mu am ci ñaari combat bi ñëw takkul gisuñu ko mu sangoo ay gàllaaj yu bëri loolu lan lañ ci mën a jàng. waaw liñ ci mën a jàng mooy d'abord. la force d'un lutteur mooy am entraînement bu doy condition physique bu doy endurance bu doy résistance bu doy doole ju bari loolu moo jiitu euh, mystique mënul ñàkk ci làmb mais li ci ëpp daf lay aar ut lu nga xam ne daf lay mosal ci cat mosal la ci bët mosal la ci lam mosal la si làmmeñ ndax Lamine day xool naan mbër mi xoola xoolal poocee na mu toll wóolu la loolool kii yee jàpp loolu ñun dañoo am lu ñu gëm mooy làmmeñ mën na wàññi dara bët mën na wàññi dara wax mën na wàññi dara loolu nga aar sa bopp ñag sa bopp ba kenn du la mën a jàpp mystiquement loolu baax na waaye li ëpp solo mooy entraînement mooy nekk un véritable athlète comme ni ko Modou Lo wanee. kontaan naa ci yow li ñu a wax xajul fii. dinañu amaat jotaay bu gën a yaatu gën a yaatal. Sénégal a gaaw. KPR transfert locale la ñun ñoo ko moom. di ci soññu Sénégal yëpp ñu consommer ko.